waa koy waxal di yuuxu nii Elena Dakar lu ci nekk baaxul égalisation partie sept ki wax ni quel bii ci dafa am nañ dem vaar Elena da nga amata yëgoo loolu nga yuux ni nañ dem vaar man su ma dugalee xam naa ne bii bul werante sax. papa xam naa sama bopp ëmb ma. oh Minna kaay.